ñàkk a taw ak yeneen man dama gëm ne yàlla subhanahu wa taala jaamam yi da leen fi indi ngir ñu jaamu ko waaye ñuy jaamu ko itam te déggal waaye jamono ji gis ngeen xutba bi sax dafa dem ci loolu yàlla daf ñoo avertiroon ci alxuraanam bu tëdd nee la in shakartum bu ngeen gërëmee la azidannakum ma waaye nag wala in kafartum bu ma leen defaree xéewal ngeen weddi ko inna azabi eh, la shadid samay mbugal tar ñun sénégalais yi dañoo war a dellu si tuub te wàññi jooytu bi wax yàlla képp koo xam ne ki xool nga sa bopp nga lim li nga am yëpp ak li nga ñàkk da gis ne li nga am moo foofu li nga ñàkk yàlla nag di ñu defal sant nu ko yàlla itam di ñu sonal kon nan dellu tu loolu rek man jàpp naa ne mooy suñ jafe-jafe gisaguma ci sama dund gu gàtt gi jullit boo xam ne bii nekk na jullit dëgg-dëgg gëm yàlla ragal yàlla di jëfi di ko yàlla tere bàyyi lim ko tere dee torof gisaguma ko ku ko gis tam nag ma ko woon kon nañu dellu tuub te itam ñu xam ne wërsëg kenn du ko joxe yàlla moom moo koy joxe kooko yaakaarale ku dul yàlla rek yaa ngi nax sa bopp yàlla nag du la demal ci magasin bi yàlla bàyyi maam Abdou Aziz daal wax waaye dalay booleek nit kam la booleel nag sant ko moom yàlla kon jàpp naa ne e, bu ñu delloo tuub sant yàlla ñaan ko mu may moom moo ne wax ud'uunii astajib lakum yàlla du foo fooluwul foowul nee na bu ngeen ma e, ñaanee ma may leen waaye ñaan dafa am ay condition doo def lu la neex ba noppi dëgg dëgg nag bëgg yàlla may na kon boog nanu dellu soit nanu tuub ñaan te na nanu dem ci jàkka yi nañu def ci kii def ay sarax ñaan yàlla mu yërëm loolu mooy suñu métti métti dëgg yàlla eh, ku ñu yaakaar ne bu fi toogee dina defal dina defal ñëpp mënta nekk loolu yàlla rek a ko jagoo te yàlla mi ko jagoo sax defu donc nag loolu laay kii di ci di leen ndokkeel yéen ak seen télé bi ak mbokk jullit yëpp di leen wax euh, ak mu nekk yal na yàlla def ngeen nekk si jàmm. yokkute ci diir ak ci nit ci àdduna ak àllaaxira ci dara yonent bi sallallahu